abu yazid al bastami mo wax yàlla niko man na fexe ba nga tëj buntu safara ken du ci dem mu ni mayit man na fexe fi ng koy wajé ma def leen leneen leneen ma def la leneen euh serigne babakar ci wax nak ci jeexitu xutba ba ni waaw ndax yàlla bo gisé nit di ci toro ci pour rek gindi njabootam a waaw te terewul kat yii laay am lëf dana ca wàññeeku fokk wilaayam lëf wàññeeku waaye bu ko waxul it njabootam dugg biir kam bu ko waxul rek njabootam dugg biir kamp bu ko waxee rek ñu wàññi garaatam lu ngeen ci xam ah, ah.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 jar na ko wala ma xarra tabayanatil jinna allaw kanu yaalamoon al xayb ma labitoo fi l adabil muhin walaay xam li ñëwagul ku ko dindi ci loxo yàlla tooñ wallaay ndeysaan kenn ku mën a dund xam dund te amul ku la ni nangama xew mënul nekk ka ca gën nag mooy yàlla waaw lee xew ku la ko mën ci wax yàlla ko ca tane fuuf ndax wala yu nabbiuka lu xabiir waaw yàlla ne expérience rek ci man la yem kon lu ma la waxu keneen ku la ko wax rek am na lu mu ca ne sax waaw maa xam lépp ñi ci des tuuti la xam waaw moo tax ba mu wooyee ba mu wooyee nuux ni ko isnail fulk mu bëgg a tëb mu ni ko bi ayunina mu bëgg a tëb mu ni ko wax yi na ah ndeysaan yëf ya faf yàq wallaay ndeysaan mu xam ne ndeke taalibe lay doon ba faw faw faw yonti yàlla nuux faf rek ba yàlla bëgg musal ñëpp ni ko defaral ma gaal mu bëgg a dem rax ca soxla boppam boobu bu ko yàlla téyewu bu defaree gaal ga ba noppi genn wàll ga lay jox yàlla genn wàll ga mu sakkal ko benn walay ndeysaan yàlla ko mukk bi aaw yi dinaa kay taxaw nga def ko ba yi naa maa lay wax ni fii lay dale fii lay yem lu ko mooy rek boo ci jógee dem def ci commerce te duma ci d'accord walay ndeysaan pexe amul yàlla rekk yërëm bi moom rekk yërëm bi waaw yonent bu ne xulli na la mi la wattul ma sama njaboot ci waaw walaay ndeysaan ndax nit dafa gaaw a jàddu lool moo tax dañu wax ni mooy maane mooy maami yettkat yi moom moo ñu ni mooy maamu yettkat yi waaye ñéppay maamu yettkat dafa fekk ñu liggéey la ko lool rek waaye ñéppay maamu yettkat yi eh, borom kër boo gis am na doomam bu mën a yett maam moo gis am na sëtam bu mën a yett kon nag ñépp jur yettkat dañ ko yett lool rek waaw moo tax li ngeen di tudde sax développement développement ku nekk koy wax développement développement développement économique développement culturel développement yàlla bañul benn développement biñ ko tuddewul rek la bañ biñ ko tuddewul rek la bañ atabnuuna atabnuuna bi kulli riin ayatan taabasuun taabasuun wa tattaxiduuna masaniya لعلكم تقلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين يلا بنيو البن ديفلوبمون مي بي موم مامول بغوكو بي موم مامول بغوكو نوك ما تخ موني تاخ يو رافيت لي نين تابخ بور فوريك بور فوريك نحن تودي وولين باكو usine yi ngeen taxaw pour forêt pour forêt tuddewu leen bopp ñaata at ngeen di dund yéen ñi ko def ñaata at ngeen di dund maa leen koy laaj parce que dana am bés ma for leen ko fi dana am ma for leen ko fi kon nag tudde leen ma benn yoon rek waaw bu ko defee bu ngeen ma ko tuddee benn yoon rekk soxar génn ca lu ko moy nag wa ida batashtum batashtum jabbaariin maa la gën kër doo kenn ne soxor dugg maa ne la gën tool doo kenn ne soxor dugg ne ñetti soxor yooyu nag ku ko boole boo ñëwee fekk ku la gën fuuf méngoo ñëpp moo tax yonent bi ni boo bëggee am jikko loo tabax ci àdduna yàlla moom ko ne génneel génneel par parloo ci sa xol gàllankoor bu rëy la waaw par parloo man daal diw laa faral waxuñu la loolu diw laa roy ku ne sañ na ko diw laa roy ku ne sañ na ko waaye diw laa yépp yàqu waaw yépp yàqu te sukku eh, sukku ñaan yàlla sax risque nga ci ndax bu ko par par rek risque nga ci maa ngi gis ñoom ñoom garo di bind ci benn téere ni ñaan ñaan yàlla risque la ba di ci waxtaan ak benn mbokk bu nekk fële ca Tunisie mu ne ñoom li ñu bind dafay tax kenn dootul gëm yàlla ba di ko ñaan ni ko dégguloo ko ni ko li ñu bind dëgg piir la ndax ñaan gu ñu teg ci par parloo risque la mu ni ma bu doon risque l'islam tudd ko ma ni ko tudd na ko mu ni ma fu mu ko tuddee ma ni ko ci alquran mu ni ma fan la ko fa tudde ma ni ko kii janoog yàlla doyadi ñaan ko lu doyadi yàlla nee na kooka tooñ na ko ki ñëw ba ci yàlla doyadi ñaan ko lu doyadi kooka tooñ na yàlla te risque tolluwul noonu daufa taalibu wal matlub daufa taalibu wal matlub lu tax ma qadarullah xaqa qadri xamuñu ne yàlla toll waaw xamuñu ne yàlla toll ñaan yàlla lu ko jarul risque la ñaan yàlla lu ko jarul risque la ñaanal yàlla koo xame xam ni bu amee lore risque la ñaanal yàlla koo xam ni bu amee lore risque la waaw ñaanal yàlla koo xam ne bu amee lore risque la bala nga ko ko ñaanal seet ko waaw Cheikh El Hadj wax na ko nee na turu yàlla wurus la nee turu yàlla wurus la boo ko ñaanalee ku cay tooñe kuy tooñe ca kattan ga ca jóge mu di ca tooñe nee jël nga salte ganaar rattax ko ci wurus wata ah, bu leen nit ne ñaanal ma direction bi ma jël ko ne ko ah, loo koy doyee waaw ah, kay waaw mu ni ma jaamoo ko yàlla nga ni waaw kay ma bëggal ci samay bokk nga ne waaw kay waaye bu dul loolu rek boo ci duggee bés bu jëlee direction ba ku mu tooñ ku mu tooñ ñu jox la genn wàll dara nga ci wax dafa taalib wal matlub ki am ñetti jabar euh, mu fitnaal pire ki am ñetti jabar ci biir jamono ñu fitnaal ko piir mu dem ci yàlla ni ko may ma ñeenteel <laughs> risque la mësul am nattu nattu bu toll na par parloo mësul am mukk mel lu ci nit mën a wattu war na ko def euh, te mag ñi dañu dégg dañu dégg diine dañu ko dégg bu mu te am kilifa lu ko dàq ci àdduna amul moo tax imaamu Malik Malik ibnu Anas waxuma borom ngir mi ka ñu ko tudde laa wax daan na mettit daan na mettit li par parloo def ci biir lislaam gannaaw yonent bi daan na ci mer bu ñu tuddee ñi ci lorante دانا وخني ما اقتتلوا ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفى لأنه يعني قام يوننتي بخم لي ولريب مجوري فين غاي خارك سمبوك جاك ولا سمبوك كامل ولا سمبوك جولي نانا تشري جنين رك لا خارك wante dëgg taxatu la xarit buñ ko tuddee kilifa yi ci reyante yépp du ko rus def naan maqtatalu illa ala saridil afar ak sarid espèce u cere la al afar mooy ba ñu ba ñu def diw ba weexaay ba soppeeku sàcc jëm ci xonq espèce u cere la waaw mu ni ku ci xare cere joojoo la tax xare waaye zimmatu rasul taxul wallaay ku dëgg woon la eh, eh, Imran ibnu eh, moo daan yee moo daan yee waa kër Ali ibnu Abi Talib moo leen daan tëral waaye keroog ba mu déggee ni ibnu muljim rey na ali ibnu abi talib moo jëkk moo jëkk a tagg ibnu muljim waaw moo ko jëkk a tagg ni yaa darbatan yaa darbatan min taqiyin yaa darbatan min taqiyin ma arada biha إلا ليملك من ذي العرش رضوانا ومدقين الدور برينا علي بن أبي طالب ونسكي مانجي تق لخو بدور دور بوبلي مانكوي تق ndax xam naa ni gëm yàlla rekk ak wut ngërëmal yàlla tax mu rey ku nu lakkal kookule te moo leen daan yee moo leen daan tëral waaw tagg ko tagg bu rëy boobu yaa darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyamlika min dil arshi ridwana imaamu tabari dafa mer ba mu ko jàngee ba ne yaa tarbatan min shaqiyin wallahi ma araada biha illa li yahdima min dil arshi bunyaana wax la ni par parlo baaxul baaxul dafa fekk nga jàmm yàlla téeméeri at mu yàq ko ci benn bëccëg ndax ku weddi dëgg yàqu ku weddi dëgg rek yàqu waaw Abdullahi Muhammadul Mahdi eh, par parloo ak àggoon naag moom ba mu fàtte xa xaqaayiq yi ci lislaam dellu ci aada ba ba muy xulóog Eh, mansurul jaafar ma ngi ko naan maay maay awsatu bani haashimin nasaban waaw ma ngay tagg boppam nag eh, lam talit nil ajam ma ngay tagg boppam nag eh, fàtte na ni fàtte na ni Maria la copte moo jur Ibrahim fàtte na ni Ibrahim bi yonent bi amul lu dul moom ci doom bu góor fàtte na ni yaayam copte la mu nga jógee Égypte fàtte na ko mu naan man ku dul arab juruma te Ibrahim di sangu ñépp yonent bi jur ko jur ko koo xam ni copte la moom mu naan ajam juruma arabuma jur te yëgul ni euh, euh, yaayu Ibrahim ci ajam la bokk tagg sa bopp ba xas sa bopp ndax aada ndax aada nii yonent bi jur na ma ñaari yoon yàlla bañ na ko ba tànnal ma ñaari way jur sama way jur bi mooy sangu waa ajjana ndax mooy muhammad sama way jur bi mooy sangu waa safara ndax mooy abulaal wallaay ndeysaan aada rek fàttaloo na ko la ci lislaam ñëpp waaw euh, Mansour ni ko yonent bi juratul kenn ma kaana muhammadun aba ahadin min rijali walakin rasulallahi wa xatima nabiin ni ko fàtte nga xaat aayam mu ni yàcc di ko xool mu ni ko teyit sangu safara amul Ya, ni ko ko am mbokk mu dugg safara dang koy ñaanal yalla waaye do titeru ni mooy nah. sayyidu ali na setal loolu ni ada fore nga tam taxaw ci ëttu yonent bi naan may doomu sangu wa àjjana ndax muhammad ma jur may doomu sangu wa safara ndax abu lahab jur aada mën ci nit lu nekk waaw mu ni ma kaana mu aba ahad min rijalikum walakin rasul allahi wa xatima annabii te nit du puukare woo ku nekk safara ma ni ko ah. ma ni ko ah, Cheikh El Hadj wax na ko na man de bu ma kenn tagge moo xam ni wóor na ma ni ma nga ca jahannama waaw boo ko waxoon ba tax na li ci yonent bi war a def yépp mooy won na nit ñépp ni ñoo yem ca yàlla waaw façon bi mu ko defee kenn mënu ko ndax itam dafay fekk ki ñépp yaakaar bu yiw wàccee buñ ca naree tudd kooka mu jàddal yiw seetal loolu bu yiw wàcce kañ ca yaakaar nar ko ca tudd dana fexe ba yiw wa jàdd ko dem ci ku kenn dul tudd waaw pour yar nit ñi rek pour yar nit ñi rek keroog bi Saad ibnu Muaaz gaañoo ñu di ko yóbbu di ko suuli naaj waa ngi tàng te muy dox dox bu yéex moom yonent bi ñu ñu ko doo gaawal sa tànk ndax naaj wi tàng na ni ma koy teg parce que yàlla malaayika yi mu amoon yépp ñu ngi ci kaw suuf tey di yóbbu néew bi kon fu may teg sama tànk ba gaawal ko te booba du Abu Bakr booba du Umar booba du Usman booba du Ali booba Saad ibnu Muaad la waaw di ko xam ni bu nit ñi dee wut jegeñ mu mu toog ca pet ba kooku la yonent bi wax ni maa ngi leen di yëgal ni waa malakoot yépp wàcce nañu drapeau ya yàlla moom pour dëje ko waaw te fu ma teg sama tànk ba gaawal sama dox amul ndax malaayika yi wàcc di ko yóbbu waaw ba tax xasaanu bnu thabit wax ni wa mahtaza wa mahtaza arshullahi min mawti halikin سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو بوبو أبو بكر مومكو عمر مومكو عثمان مومكو علي مومكو واو ñepp dañ ko ni laajal nu jibril bu ko yàlla tànnloo pour mu sol mbubbu nit ku mu bëgg a nirool ci ñi ànd ak yow mu leen danaa ko ko laaj booba Aboubacar def na ni bu tontu bi ñëwee di moom Omar defe na ni bu tontu bi ñëwee di moom Ousmane defe na ni bu tontu bi ñëwee di moom alihi defene ni bu tontu bi ñëwee di moom ba tontu bu ñëwee mu ni leen jibril neene ki mu bëgg a niru mooy dixyatal kalbi koo xam ni kenn daawu ko tudd kenn xamu ko ñu ni kuy dixya ñu ni mooy góor gële toog kenn xamu ko hein leçon démocratie bu nekk joxe la ko pour wone ni jom ji rek la yàlla soxla waaye euh, sikkim beeg juddu beeg tiitër beeg yooyu yëpp yàlla soxlawu ko soxlawu ko ba moo tax ndeysaan Imran ibn Husayn daan na am ci Sénégal loolu am na mag ñum fi dal Imran ibn Husayn dañ ko jam mu xool ki ko jam kooku rocci xeej mu gëdd kooka kooka daw mu jël kaalam takk jam jam mu ni ci xelam sunu borom maa ngi jaayanteeg yow ni rus naa gor yëg ni dem nañ ndax noonu yonent bi ku mu jam boo dee gor waruloo ko siiwal jigéen yëgul buur yëgul ndaw yëgul ma nga caag jam-jamam rek ni bët bu xëyee ma nga wut greesu gëléem defar ko taf ko kenn yëgul ni jam nañ rus na taxaw di wax ni yo noonu yonent bi jam léeg góor yu baax rekk romb ko ni ko nanga def mu ni maa ngi sant yàlla rek ñu dindi cëgu tàndarma walla dara jox ko muy xalaat nag ñii luñ ma yërëme waaye rek mu yëg ni lii xéewal la léeg ñu nuyu ko yiw jox ko dara rekk lu këram mën a dunde ba ba jam-jam bi wér te waxuñu ko ni yëg nañu jam-jam bi ba mujj nit lu mu nëbbu nëbbu mënul nëbbu soxnaam mu jàpp ci yàlla nag affaire ba neex ci xolam ba mu woon soxnaam ni ko man kat dama amee benn jam-jam waaye dama waat ni kenn bu ko yëg ci kaw suuf yow rek laa ko yëgal seen nag sa fa mu daan toog mu toog fa kenn romb fa jox ko dara firi na jaayante ba mu jaaxle lool dem ci yonent bi ko man de dama am mbokk yu baax waxuñu ma sax ban ban xeet lañu bokk waaye yiw nañu lool tatabe ñoo ma daan jox lu ma dunde fan yii yëpp tey nag ñiwuñu ma bëgg rekk mu dugg sanam mu ni ko loo yëgle ni ko loo yëgle mu ni dënn ba mu yàgg mu ni ko ah wax dëgg yàlla jam nañ ma nettali ko affaire ba mu àgg mu ni ko gis nga ñooñu ñu ngi bokk ci mi ci ci almalaikatul muqarrabin yëg nañu sa jaayante booba bu ni toll ci ñoom masul am ba nga ko waxee nga ko ñaar pour wax la yonent bi fu mu àgg nit ñi dàq seen way jur dàq seen askan dàq xeet wa ñu bokk dàq lépp góor gu mu taxawal la ci kanamu yàlla yaat moom rekk ah góor gu ne mu taxawal la ci kanamu yàlla yàpp moom rek léegi nag fu sa jom àgg rek sa cër àgg fa waaw fu sa jom àgg rek sa cër àgg fa waaw lu ne def na ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu nekk def na ko maa ngi koy wax ci benn compagnie bu transport aérien ñaare boo ci duggee waaw yoon bi jotee dañoo jàng aaya alquran wax ni subhana alladi saxara lana hada wa ma kunna ñu ñaan ñaanu yonent bi muy ñaan wàllu tukki nu mu bëggee yàlla defale ko ko noonu man leen ndax xam ngeen lii lan la tax xam ngeen man leen yonent bi dafa asaf distance la asaf ndax góor gu ragal tukki xalaat sa soxna tax du leneen nag góor gu ragal tukki xalaat góor gu ragal tukki xalaat sa doom a yonent bi fexe ba booy tukki nga ni yàlla wutuma ci soxna si ndax man jëkk rekk laa yow yaa bind wutuma ci xale bi ndax man bàyyi rekk laa yow yaa bind gunge ma ci yoon bi ndax ñeme wu ma yow rekk yaa ñeme fanqal ma coon fi ma jëm ma ni waaw kii kay asaf na diggante yëpp dem nga demuloo dem nga demuloo loo xalaatati nag sa ñàkk ngëm moo fa àgg waaw loo xalaatati sa ñàkk ngëm moo fa waaye góor gudul jóg fa mu toog baaxul baaxul de du xam dara ah? waaw xam dara am na ñu ragal tukki ba du ñu dem fenn fenn fenn fenn fenn walaay ndeysaan walaay ndeysaan ba tax na nag nit rek moo am solo doomu diw amul solo diw moo am solo waaw la ibnu ibnu Gurion ñu di ko Ben Gurion xawma ca Israël la mu yedde woon militaire am leen gis ngeen canon yi ak avion yi am na baat bu leen mujj te mooy nit ñoom ñépp daañu tële bés waaye nit du tële mukk canon dana tële avion tële leneen tële waaye nit pire bu sës gannaawam ci borom du tële mukk waaw mu mel ni kon nag yëf yi dellu na ci boroom mu yàlla moom la ñuy jëkke moom la ñuy digale moom la ñuy mujjale tabarkalla la dee réew mi ay bàyyi diine fi nekk li nu dimbale di nu teete di nu yee bu dee réew mi kilifa yi ko amee ñoonu ci teete di ñu ci dimbale te ki ci nekk ci seen kanam di wëllëre ci nun di mbokk ci nun di xarit ci nun di kilifa ci nun muy président de la république mu mel ni kon nag bu wóolu amul rekk caalit dikk na président itam du ñu ko topp topp tàccu rekk yaa fi ne yaa fi ne dañ koy topp topp liggéeyal ko lu bëgg a yàqu mu defar waaw bu neen wax def ma ni li ngeen defar li ci gën a positif mooy Tiwaawan ñépp nekk benn Tiwaawan ak Tuuba nekk benn ñoom ñaar ak ñi ci des nekk benn mu ni lu ngeen liggéey loolu ci gën a positif waaw mu ni ndax bu amul lu dootu lu mun gouverner waaw bu këru diine yi jubóowul rek adduna tukki ci sunu loxo waaw bu këru diine yi mu ni ma adduna tukki ci sunu loxo dootuñu defar lu sotti ma xam ni kon nag dégg na affaire bi bi mu déggee affaire bi nag takku rekk ci des jàppale ko dimbale ko mu jubóog ñëpp ñëpp nekk benn ndax kat tojante bopp xaju ñëpp bokk na ak bàyyi yal na yàlla def jàmm jooju ci réew mi def ko ci ndox mi def ko ci jaww ji def ko ci garab yi def ko ci liggéeyu ministre yi def ko ci liggéeyu gouverneur yi def ko ci liggéeyu njaboot gi topp ci seen gannaaw def ko ci liggéeyu daara yi def ko ci liggéeyu daara yi def ko ci liggéeyu jàkka yi def ko ci liggéeyu église yi def ko ci liggéeyu fépp fu nuy liggéeyal jikko te di fa liggéeyal ak baax te di fa liggéeyal lu jekk yal na nu ko yàlla boole defal ci zahir ak ci baatin ngeen bal nu àq kenn ku nekk jàngaat fatiha bu sell falaxeeg naasi bu sell ñetti salaatu ala nabi yu sell ñu ñaanalante yàlla yeewente kenn bana xatal moroom ma boroom oto yi dox ndànk ba déwén ak jàmm nu dellu si fi ci kàttanu yàlla yal na nu ko yàlla boole